waj'alhu zakiran wa shakiran abad waj'al kalami rasidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñoo ngi leen di nuyu bu baax te di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen balu aq te di leen baal di ñaan suñu borom bi ta wa mu boole ñu jéggal ñu ko baaxoo ànd ak yéen ci ay bis bu jot di fàttalente ndoo ak yéen ci lenn ci mbindum sëriñ bi radiyallahu anhu ci suñu émission bi ñu tuddee jataayu xam-xam di ci nafarandoo ak yéen waaye di ci euh, fàttalente ndoo ak yéen moom la ñuy woyal rek di sof ci bind bi nga xam ne foofu lañu taxawoon ci suñu bind bi mujj ñu nekkoon ci sart yi nga xam ne mooy sarti tuub euh, ak li nga xam ne mooy nit ki nga yoreel àq te muy jën ko mën a delloo nga war ko ko delloo waaye itam moytandiku lépp loo xam ne moo jëm ci yàq derub nit ki wala yi nga xam ne moo aju ci di gàkkal ab deram ci loolu nag ñi ngi taxawoon ci bayit yi nga xam ne sëriñ bi radiyallahu anhu ñu ci wax ne in xadaral mazlumu summa in fuqid fal yuksir al xayra laallahu yajid shay'an yuwaddi xaqa kullihim bihi mustaghfiran wal yarju afwa rabbihi ci bayit boobu lañ taxawoon Euh, te it leeraloon nañ ko ci suñu bind bi mujj kon suñu bindu tey fi muy tàmbale mooy fi sëriñ bi radiyallahu anhu di wax ni xarrama aramal na euh, wa xarrama aramal al muntaqimu aji fayantooja te mooy suñu borom bi subhaanahu wa al qahaaru notaakan ba te mooy suñu borom bi subhaanahu wa taala ay ñaawteef yoo xam ne tasuulu deef na tàbbee bihaa ci ñaawteef yooye annaaru sawara menay suñu borom bi subhanahu wa taala mi nga xam ne mooy aji fayantoo te mooy aji not mbindeef yépp euh, ngir kàttanam waaye mooy aji not mbindeef yépp itam ki ab sañ-sañam araamal na ay mbir yoo xam ne ay ñaawteef yoo xam ne képp koo xam ne taqoo nga ak moom di ko def man nga cee bi sawara bu la suñu borom bi subhaanahu wa taala jéggalu euh, kon ñaawteef yooyu yan la mu ne xadd xarama aramal na moom suñu borom bi subhaanahu wa taala alkaziba mooy wax lu amut wax lu juuyoo ak dëgg al euh, ak jëw maana mimatin ànd ak rambaaje kibran ak rëy wa ojban ak aaw muy naw jëf xad yaqa goog dana tàbbi dana suñu borom bi subhanahu wa taala day eh, ñaawteef yooyu mu la tuddal daf ko araamal araamal na li nga xam ne moo di wax lu dul dëgg te loolu boo demee ci suñu borom boo demee ci alquranul karim suñu borom bi subhanahu wa taala man ko fay eh, wax ci ay aay yu baree baree bari mën nañu cee jël aaya bi nga xam ne rek ki lay wax ne inna allaha la yahdi man huwa musrifun kazzab suñu borom bi subhanahu wa taala day képp koo xam ne ab yàqkat nga képp koo xam ne a ah, waxkatub lu amut nga suñu borom bi subhanahu wa taala du la gindi waaye suñu borom bi subhanahu wa taala du la teg ci aw yoon kon euh, loolu rek doyoon na sëkk ñu xam ne loolu jikko ju bon la joo xam ne doomu aadama bi war na ko moytandiku bu baax a baax a baax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ci xadis ne màndargaay naafiq de ñett la waaye bu muy lim màndargaay naafiq yooyu di ñett ba mu ci jëkk jiital mooy isa xadasa kazaba mooy ko xam ne saa bu ngeen waxtaanee mu wax la lu du lu amut mooy koo xam ne saa bu ngeen waxtaanee mu wax la lu amut isa xadasa kazaba wa isa waxada axlafa wa isa tumina xaana kon foofu li ñu ci gën a yittee rek mooy loolu yonente bi saa sallam wax ne mooy koo xam ne saa bu ngeen waxtaanee mu wax la euh, la ca ginnaaw dëgg maanaam du la wax li nga xam ne mooy dëgg te yonente bi saa sallam don na wax ci xadis ne képp koo xam ne day waxal nga ma loo xam ne waxuma ko nanga euh, waajal sa bank boo xam ne ëllëg ca sawara nga koy fekk maanaam na nga waajal sa bank sawara da nga fa am place boo ëllëgee yowmal xiyaam kon loolu rek doyoon na sëkk ñu xam ne jikko ju bon la joo xam ne li tax suñ boroom subhanahu wa taala araamal ko euh, xam na ko ndax dafa mën a yàq euh, jamono waaye dafa mën a jaxasee te li mu mën a jaxasee dafa bari lool li mu mën a yàq dafa bari lool ñaareel ba di alxibatu muy jëw jëw itam doon loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala uh, aaye nañu ko waaye yonente bi salallahu alayhi wa sallam itam gën ñu ko aaye waaye gën ñu ko tere bu baax a baax a baax boo demee ci alquranul karim suñu borom bi subhanahu wa taala ma nga fay wax naa ayuhibbu ahadakum an yakula lahma aqihi mayitan uh, fa karihtumuhu Euh, boo demee aaya ba ma nga ma nga ma nga ma nga yaa ayyuhallazina amanu ijtanibu kasiran min az-zanni inna ba'da az-zanni ismun wala yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an yakula lahma aqihi mayitan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabun rahim nee na yéen nga xam ne yéen a gëm yàlla de na ngeen moytandiku na ngeen moytandiku ñaawteef na ngeen moytandiku Euh, lu baree bari ci loo xam ne daa jëm ci njort maanaam na ngeen moytandiku njort lu ñaaw ndax lu baree bari ci njort yi day euh, ay bàkkaar rek la wax ñu ne nag wala yaxtab baadukum baadan bu kenn jëw moroomam ci yéen daal ñu koy misaalal ne jëw sa moroom day sa moroomum jullit day mi ngi mel ni nga euh, tiim sa mbokk faatu ngay dagg ca aw yàppam Euh, di ko lekk te loolu yaakaar naa euh, kenn bëgg ko comme kenn bëgg ko nag loolu moo war a tax ñu moytandiku bu baax a baax jikko jooju nga xam ne euh, mooy mooy mooy jëw jëw nag doon loo xam ne lu yaatoo yaatu la waaye lu baree baree bari la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam doon laaj saxaaba yi ne leen ndax xam ngeen ne mooy jëw mooy mooy jëw ñoom ñu ne ko Euh, euh, yonente bi saa laaj leen loolu atadruna maxibatu xaalu allahu wa rasuluhu alam ñu ne ko yàlla ak yonentam bi ñoom ñoo ko xam xaala zikru axaaka bi ma yukra yonente bi ne leen mooy nga tuddu sa mbokk ci loo xam ne bu ko déggoon ko neex ñoom saxaaba yi delluwaat ne ko yonente bi saa sallam afara ayta in kaana fi axika ma aqul su fekkee ne eh, sa mbokk mi nga xam ne moom ngay tudd day ci li nga xam ne daf koo neex eh, li nga xam ne eh, bu ko déggoon mu naqari ko su fekkoon ne li nga koy tudde daa nekk ci moom yonente bi ne leen in kaana fihi ma taqulu faqad axtabtahu su fekkee ne li nga koy tudde de te bu ko déggoon daf koy naqari mi ngi ci moom na leer ne danga koo jëw wa in lam yakun fihi faqad bahattahu su fekkee ne nag Euh, li nga koy duural di ko tuddee di ko di ko di ko jëwee nekkul ca moom nee bu boobaa euh, da ko duural da nga duural te bu boobaa bàkkaar boobu mooy gën a rëy ndax danga boole jëw ko ak waxal ko loo xam ne euh, amut kon jëw moom itam jikko la joo xam ne ju jaram moytandiku la ngir ñaawteef yi nga xam ne moom la mën a indil doomu aadama bi waaye jafe-jafe yi nga xam ne moom la mën a andil doomu adama bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam euh, sëriñ bi radiyallahu anhu tuddaat ci jikko yooyu nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ñu koy moytandikuloo te aramal ko mooy namima di rambaaje maanaam dox di jaxase euh, aw nit dox di jaxase aw nit euh, jëw ñëw ci nit waxal fa nit loo xam ne Euh, nekkul ci moom waaye jubluwoo ci dara lu yàq seen diggante waaye jubluwoo ci dara lu dut euh, jaxase seen diggante te lislaam dafa doon diine joo xam ne dafa bëgg ñuy ñuy dox di yéwénal ay diggante yu jaxasoo waaye bëggut ñuy jaxase ay diggante te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ci xadis euh, romb na ñaari barab yoo xam ne seeni borom dañoo faatu mu leen di mbugal Euh, waaye ba mu waxee ne ña nga leen di mbugal day nee na di mbugal day ñaari mbir yii la euh, kenn ki ci ñoom daf daan dox ci ak rambaaj maanaam daf daan dox di rambaaje nit ñi keneen ki daf daan euh, tuur ndox te bu tuuree ndox ba pare du du du du wisu du kon yooyu itam yu jara bàyyi xel la kon jaxase aw nit doonut loo xam ne lislaam bëgg na ko waaye suñu borom subhanahu wa taala aaye nañu ko waaye sëriñ bi radiallahu anhu leeral nañu ko itam ci euh, xasida gi nga xam ne boo demee ci mu euh, munawwiru sudur sëriñ bi radiallahu bunt ba fa tudde faslun fi fil kabair euh, jikko yi yëpp limaat na ko fa waaye leeral na ko fa itam ñu war ko moytandiku bu baax a baax a baax a baax te eh, eh, jikko yi benn jikko jikko ji ci ne dafa am cër boo xam ne moo ko jagoo di ko def moo tax ñu war a eh, sàmm cër yooyu yëpp jikko boo xam ne cër boobu moo ko war a def ñu fexe ba dox digganteem ak jikko jooju ba nga xam ne bu ëllëgee duñu mën a yóbbee li nga xam ne moo di ay jafe-jafe sëriñ bi radiyallahu anhu teg ci kibro muy rëy maanaam rëy rëylu rëy nag doon loo xam ne jikko la xam ne suñu borom subhanahu wa taala rek moom moo ko yelloo euh, te it nee na képp koo xam ne bëgg nga ko bokk ak man day dama lay lakk rëy moom suñu borom rek moo ko jagoo moom rek moo ko moome jikko la xam ne moom rek moo ko jagoo euh, kenn waru koo xëccoo ak moom te ko xëccoo ak moom itam euh, moom suñu borom subhanahu wa taala dana jëflante ak yow moo tax jikko la joo xam ne doomu aadama waru koo jikkoo waaye jikko la joo xam ne itam suñu borom subhanahu wa taala rek mooy borom màgg gi te mooy moo amee ak rëy moom amee ak ah, ay al kibriya muy ak rëy kenn waru koo xëccoo ak moom waaye kenn waru cee ah, kenn waru koo jima bokk ak moom wa ban ak naw jëf muy di jëf dara ba pare di ko naw di jaamu yàlla boo jaamu yàlla di naw li ngay def jàpp ne yow egg nga te fekk na yow jëfagoo euh, lu toll ni euh, pepp zarra kon nit ki lépp loo xam ne mi ngi koy def ci ay topp yàlla lépp loo xam ne mi ngi koy def ci ay jaamu yàlla euh, na ko def te jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala rek tax waaye bu ko defee bu pare bu mu ca gestu jàpp ne moom kat li mu def dafa rëy wala dara kon yooyu yëpp ay bàkkaar la wala ay ñaawteef la ay jikko la yoo xam ne Euh, sëriñ birad radiyallahu anhu ne ne képp koo xam ne taxoo nga ko day di euh, jikko woo jikko yooyu euh, jikko yooyu man na laa yóbbu li nga xam ne moo di mën na laa yóbbu li nga xam ne ëllëg ak tàbbi sawara kon soo demee ci a Munawwir Sudur sëriñ bi radiyallahu anhu bunt ba mu xam ba nga xam ne moom la jagleel jikko yi sax faslun fil kabaa'iri la ko tuddee maanaam buntu la boo xam ni bàkkaar yu màgg yi nga xam ni ab jullit daf ko war a moytu ab doomu aadama daf ko war a moytu yooyu rek la ko sëriñ bi radiyallahu anhu euh, di euh, leeral kon loolu muy lu jara bàyyi xel sëriñ bi tekki ne su mariyan topp ngistal su maatan ndéggtal buxdan ak ak bañ aw nit xasat soxot ru'yatu fadlin xool bëtub ngëneel alal ahadi ci kenn mutlaxan fu mu man di doon bokk na ci jikko yi nga xam ne war nañ koo moytandiku ba tey mooy euh, riya mooy ngissal maanaam di def dara ba pare di ci euh, gissal di ci di ci ngissal euh, nit ñi ndax su fekkee ne da jëf dara ten bëgg nit ñi gis la di la ko tàgge moo tax nga koy def bu boobaa bu ëllëgee suñu borom subhanahu wa ñi nga xam ne ñoom nga doon ngis salal rek ñoom la lay bàyyee nit dina jëf jëf ju rëy ci àdduna dem ba ëllëg yow mal xiyaam mu cay yaakaar ak ab yool euh, te du fa fekk dara ndax lan li tax du fa fekk dara mooy ba mu ko doon def kat nit ñi la ci doon xool nit ñi la bëggoon ñu tagg ko ci nit ñi la bëggoon ñu gis ko su ko defee nag bu demee suñu borom subhanahu ne ko ña nga ko doon won dey demal ñu fay la waaye man ameelu ma la ak fay moo tax nit ki lu muy def da ko war a def ci ak sell Euh, ndax euh, suñu borom subhanahu wa taala dafa bëgg euh, ak sellal waaye dafa bëgg lépp lu doomu aadama bi def ak sellalal ko waaye mu def ko te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax wala li nga xam ne mooy ndéggtal ndéggtal mooy lan mooy nit ki di jëf ay jëf yu baax yoo xam ne lu mu ci jublu rek daf koy jëf ngir bu rombee fenn ñu ñu koy wax bu rombee fenn ñu koy wax lu mel ni di tabax ay jàkka wala ngay tabax ay jumaate loolu lépp defoo ko te jëm yàlla ji tax defoo ko ngiruk sellal waaye da nga koo def ngir bëgg foo romb ñu ne manga nga ne moo doon tabax jàkka ji wala moo doon tabax jumaa ji yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ay jikko yoo xam ne képp ku taqoog moom da ngay jëf ba sonn te euh, la ngay jëf suñu borom subhanahu wa du ci nungu dara waaye bu ëllëgee itam suñu borom du la ci fay dara niki noonu tamit bañ bañ doomu aadama yi wala ngay bañ bindeefi suñu borom subhanahu wa te euh, bañoo leen ci euh, loo xam ne diine rek moo tax bañoo leen ci euh, diine rek bañoo leen te diine rek tax waaye bañoo leen te suñu borom bi subhanahu wa taala rek tax ndax kenn warta bañ ab jullit ci loo xam ne suñu borom subhanahu wa taala taxut waaye loo xam ne diine taxut waaye booy bañ julit bi nang ko bañ ngir booy bañ yéefar bi nang ko bañ ngir doon gi mu doon ab yéefar booy bëgg ab jullit itam nang ko bëgg ngir ba doon gi mu doon ab jullit fal yuhbibul mu'mina lil imaani wal yubridil kaafira lil kufraani maanaam booy bëgg jullit bi nang ko bëgg ngir doon gi mu doon ab julit rek waaye booy bañ yéefar bi itam na nga ko bañ ngir euh, na ko bañ ngir doon gi mu doon ab yéefar rek xasad mooy soxot ndax euh, dañuy wax ne innal xasuuda laa yasudul jilaar ki nga xam ne moo soxot moom du sangu mukk ñi nga xam ne ñoo di ak maasam maanaam nit ku soxot moom euh, dañuy wax ne soxot dafa mel ni mat ak sawara maanaam day eh, ni ni ni sawara di lakke mat di ko lekk noonu la soxot di lekke jëf ju baax nit ki lu mu mën a jëf ci jëf ju baax te teewul mu soxot teewul mu iñaan lu nit am mu soxore ko ko loolu day waral nit ki eh, maanaam ab xolam di gën a jeex ndax ki nga xam ne moom ngay soxore saa boo xëyee di gis suñu borom di ko defal lu ko avancé waaye saa boo xëyee di gis suñu borom subhanahu wa di ko gën a may ay xéewal kon ab jullit euh, bokkut ci jikkoy jullit euh, soxot wala jëfandikoo li nga xam ne moo di ak soxot euh, nit ki nag yàlla mën naa def ci biiram jikko joo xam ne jikkooy soxot la waaye nag bëggu ko moom te it dana fexey di ko bañ a jëf jëfandikoo dana fexey di bañ jëfandikoo ak soxotam kon li nga xam ne moo bon rek mooy nit ki yore jikkooy soxot ba pare di ko jëfandikoo yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne Euh, nit ki war na ko moytandiku waaye jullit bi war na ko moytandiku war na cee bàyyi xel bu baax a baax a baax ru'yatu fadlin mooy di xool bëtub gëneel maanaam di xool ni nit ki yaa ko gën ngir nangam te suñu borom bi subhanahu wa taala dafa wax ci alquran ne inna akramakum indallahi atqaakum kii gën a euh, ragal yàlla ci yéen day mooy ki nga xam ne moo leen gën maanaam ki gën ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen Euh, kon euh, bul jàpp ne euh, yow yaa gën kenn bul jàpp ne yow yaa gën kenn waaye bul jàpp ne yow yaa kawe kenn waaye bul jàpp ne yow yaa féete kaw kenn ndax suñu borom subhanahu wa taala day li nga xam ne moom lay waxee moom lañu tegal ne moom la ñuy natte ki gën ci yéen ragal yàlla rek la te yow xamoo kan nga gën a ragal yàlla xamo kan moo la gën ragal yàlla kon bul xool sa bopp jël ko di ko teg ci kaw kenn wala ngay gënal sa bopp ci kenn yooyu yëpp ay jikko la yoo xam ne euh, jullit bi war na ko moytandiku waaye doomu aadama bi war na ko moytandiku ba euh, du du jikko yooyu waaye du ko jikkowoo ndax jikko yooyu euh, jafe-jafe rek lay andil doomu aadama bi musiba rek la koy andil te comme ni ko sëriñ bi radiyallahu anhu waxee ëllëg mën na koo jural ak bi sawara waliyaasu billah kon ñu ngi tuub bu baax te jéggulu di wàcce foofu kàddu gi di wax ne in uridu ilal islaaha mastataatu ma tawfiq illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu sëriñ bi doon sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey